sëtti Cheikh Mahamadul Amin ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul daayira boobu ki njiit li sëñ Abdou Karim mi toog moom sëñ Xaadim Mud Baara comme ni ko baaxoo amal saa su ne bu nu màggalee Mbàkke Kajoor ba noppi ñu ñëw fii dajaloo ànd ak mbooleem buntu sëñ Baara yëpp da ko dala sëriñ Mud Baara ba sëriñ Xaadim Awa ak soxna yi ak seeni njaboot yëpp ñu àndandoo di say doom di say jarbaat di say sët am si sax ñoo xam ne say rak la ñu àndandoo def benn say say woow yi dara taxu koo jug lu dul dondal dundal ndonul Cheikh Mawlana Bara waaye dox mbokk gi ak jokk ko kenn ko xam ne jot amul waaye loolu mooy li waral yële daayira bi daayira bi ñu ngi ko taxaw taxawaloon ci ndigalul sunu maam Cheikh Sidou mu joxoon ñu ndigal waxoon na ngeen ko tuddee safiinatul amaan booba tey it mi ngi dox di gën a jëm kanam ba ni nga fi nekk tey jii di Cheikh Mawlid Baara liggéey boobu it nga def ci ay ñaan soññu ci waaye jiitu ci liggéey bi yaa ci njëkk def sa ñaq ba daaw am na it ay liggéey sumboon muy ay dalwaay ci Mbàkke Kajoor ak daara kenn ku kenn ku ne xam na ne dëkk ba dëkkub alxuraan la dëkkub jàngukaay la fas yéene faa defal jàngukaay boo xamante ni njabootu suñu baar gi dañ ci a jàng ak njabootu si Cheikh Khadim gépp fas yéene faa def ay dalwaay yoo xamante ni gan ñi ni am di ko dénk suñu Cheikh Ndiaye ko sonal lool ñu dem ba am suñu dalwaay bopp boo xamante ni gan ñi am di leen fi mën a dalal loolu it daaw ban la ko waxee la jamono jee xat-xat ak màggal ga yaa yëg sa tànk ñëw ba agsi teg xeer wi des ci ay ñaan dugal ci sa addee ba tey jii dalwaay booba mën na ni raase na te am na it kenn si mbokk yi ku ne wax suñu Moustapha Diaw moom nee na dina bâtiment bi njëkk bi njëkk a àggal bi njëkk a raase moom dina ko kuule te loolu it la joo xamante ni sag ñaan la ndax yaakaar naa liggéey bi yeggul te taxawul ñu ñuy ñaan Mbàkke nga dolli ñu ci ñaan ba bâtiment yenn suuf yëpp ñu ko ndax plan boo xamante ni plan bu mag la waaye booy def mbir lu mu rëy rëy da ngay sumb par benn boo sumbi benn ba mu àgg nga sumbaat beneen loolu it ñu ngi ñaan Mbàkke nga ñaanal ci baax baax di la sant itam di la gërëm ndax gis nañ taxawaay bi bi ñëwee ci màggal Mbàkke Kajoor wax la ko da ngaa jël ay baas yoo xamante ni baas bu cher la baas bu bees tàq te mënoon jox keneen nga jox ñu ko ji yëkkati sa addee jox ñu ñaanal ñu dana suñu xel ñun tuddee bis bi it bu ñëwee ñu ànd ak ñoom ñëw nuyoo nuyoo si la di ngeen di ngeen sagal ba nga xam ne lii ñii li def am na ci ndigal seen kilifa loolu lépp it taxaw goo ñu taxaw ak yittewoo goo ñu yittewoo yaa ngi nekkoon ba ci la amoon fa ay gan teewul siyaare bi. fonk nga fonk sa sët yi ak sa doom yi ak sa jarbaat yi moo waral ak sa ñëpp te ñëpp it say taalibe ndax yaa fi sëñ baara ñëpp nangu nangu tey tey ñaan yàlla yit mu yàgg da nga wér kon ñu ngi sant bu baax di gërëm daayira bi it amoon ndigal ci yow taxawu mbindum suñu baara mi mbind moom it ñu ngi koy taxaw xañ na génne ab téere boo xamante ni boroom xam-xam yi dañ koy liir di ko jàng fii ba Arabie Saoudi ñëpp di ko jàng xañ na loolo day laaj ab topp bu wér-wér moo waral mu xaw a yeex waaye am nañ yéene incha allah balaa déwén ñu am xasida yu ñu génne lu mel ne Munawwirul Bunyaal bi nga xam siiw na lool ak lu ci mel ne tibbal lu xaayir nga xam sañ baara moo mën naa ni moo njëkk a bind ci sëriñ Tuubaa kon téere boobu bu taxawee ba mu génn ñëpp dinañ xam day waaw suñ dayab suñ baara ne suñ baara kon moom moo njëkk a bind sëñ Tuubaa te loolu histoire boo xamante tey jii kër si xam leen baar dinañ ko puukar puukaree woo ndax bu demee ba képp kuy waxtaan sañ Tuubaa euh, di nga dem xool téere sëñ baara ba ba man cee sukkandiku loolu it ab sag la boo xam ne xam-xam la ñuy ñaan suñu borom uh, sottal lépp sa nga fekk ko barke seen Xaadim ñu la ñaan daal uh, naa li nga naanal si xamul leen baara yàlla nga ko àggale ñuy ñaan yàgg la fekk ba dem ba ànd suñ njaboot yi suñu njaboot yoo xam dina tal ni ñoon ànd ñun di la fekk addee jit xeeb xeeb nañ ko lool xañ na feeñal yéen la ak feeñal pas-pas waaye xee xeeb nañ ko lool Mbacké di jégalu bu baax a baax nag di jégalu bu baax di ñaan suñu borom yàgg la fi te la te ñu lay ñaan it nga ñaanal ñu seytaane bañ a dox suñu diggante seytaane bañ a dox suñu diggante ndax amuñu li benn yéene bu dul dajale njabootu Cheikh Mawlin Baara gi ndax euh, ñoo fi nekk ñun ñi ñoo fi nekk ñun seeni doom ndax ba foo jur yi nekkee donte benn yoon la nañ ko ci ci xilaaf ak Cheikh Mawlin Baara booba euh, sëti sëñ Baara yi ñoo taxawee woon conférence bi ñoo doon taxawee màggal gi bu nee ba kon tey jii euh, xañ na doomu Cheikh Mawlin Baara bu góor nekkatu fi xañ na am na ay soxna yu fi nekk waaye tey ñun ñoo ñooy seen i doom ñooy seen i jarbaat ngeen ñaanal ba doon loolu nga xamante ni yéen a ko téeloon seen waajur ya ñu mën leen ko téel te li ñaan it lépp loo xamante ni xalifa sëñ Tuubaa mi ngi koy am ci kër doom sëñ Tuubaa yàlla boo ci kenn ëppale te am na ci njortu te daayira bi takku na def wenn laxasaay xasaay ànd pour liggéey si leen baara foo joxañ foofu leen jëm foo joxanul jëm ñu fa loo wax loolu lañ leen dégg loo wax la xamuñu ko addi yi it mu ngi toll ci 300000 ñu ngi koy jégul baax Mbàkke xeeb na ko lool xañ ne chantier jàpp ak magal gën génn ak euh, projet yi yi nekk ñu ngi jégul baax Mbàkke bu fekkee juum yaakaar na kàddu yooyu leen waxoon nañu jottali ko asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi nee na mi ngi nuy nuyu bu baax te di leen siyaare te di leen baalu xaq te di leen baal xaq di sàkku nu baalante xaq nee na di wax alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf Cheikh Mouhamadul Amin Mbacké bim nu mayee nu teew fi nëga daaw baaxenu ci yërmandeem ak ku bëggam ba nu teewaat fi nëga ni ren yal na nu yàlla doole dimbali ci barkeem bañ teewaat ko déwén alhamdulilah. nee na xolam sedd na. nee na xelamit dal na. nee na njor tamit gën naa rafet. neena ndax yat. nee bi ci jiitu mooy. neena seen pëstéef ak seen yéene. ak seen bëgg-bëgg. lépp sëriñ bi tax. addiya ji itam. nee na itam. jot na jot na ci. nangu nee na nangu na ko. nangu nañ nee na nangul nañ leen ko. fas yéene koo def ci liggéeyub sëriñ bi. lu mu bari bari bari. nee na lu bari bari bari. yéene ko lal. yéene ko àggale ko. bu doon luy néew. bu doon luy néew. yéene koy tàmbali Pastef àggale ko yéene jooju nag nee na yaar yooyu nag nee na matal ngeen lépp yàlla na nu yàlla nangul te barkeel nee na li ci des mooy nee na xanaa feeñal yéene rek ci mbégteem jataay bi nee na jataay bi day jataay bu rëy ci moom nee na gi moo di. ba ci njëkk. ba ci njëkk. mooy tànk yi kilifa yi taxawoon. na tànk kilifa yi taxawoon. Eh, eh, daan ko dox. daan ko dox. te bëggoon ko. te bëggoon ko. mu waroon taxaw soññi leen ca. nee na mu waroon taxaw soññi leen ca. ngeen jiitu nee na ngeen jiitu ko ngeen jiitu ca. kon nee na kon loolu sant yàlla la. te mooy ànd nekk benn. te mooy ànd nekk benn. fas yéene fas yéene liggéeyal sëriñ bi te muy dëgg ci yéen te jotadi yi bari na yitte yi bari na nee na kon kenn ku def lu du dëgg ci moom rek dafay jafe nee na rawatina nii ngeen tooge nii yitte yi bari na yitte ju nekk am naw lay boo ko layalee kenn du ko mën a dindi ba tax ñu jàpp suñ lépp nag takkoo ànd nekk benn ngir bëgg dundal ndénkaaney sëriñ bi ngir bëgg a dundal sëriñ bi nee na leen ci yàlla jàppale nee na bi ci ñaareel mooy mbokk gi mooy te sëriñ bi da koo fonkoon lool daan ko dox daan ko doxlu mu koy dégg ba ak suñu wayjur yi ñu koy wax di ko jëf mu koy gis kon ñu bu ñu nee na kon loolu bu ñu leen ci waroon a soññi. ngeen jiitu leen ca. ngeen jiitu leen ca. nee na doy na sant yàlla. ndax jamono toll na foofu. ndax jamono toll na foofu. kilifa yàlla koy def. koy def. kañ yilif itam yàlla koy dogal. kañ koy dogal. nee na kon liñ yilif. mi ngi sant yàlla bu baax. ci doxin wi. ak taxawaay bi. ndax yéene kese. ndax yàlla rek la jikk waaye nii ngeen takkoo. ak nii ngeen pasteefoo. seen yéene ëpp na ko. kon yàlla na nu yàlla jàppale. ba nu àggale sunu yéene. tam yeex a àgg. ndax yéene ju àgg moom. mooy dee dem aljanna. nee mi ngi sant. moo ngi rafet njort bu baax itam. moo ngi rafet njort bu baax itam. ci luñ jublu. ndax ni ñu war a mel. nee na nu meloon yi tamit. lu bokkut ak bëggub sëriñ bi. lu bokkut ak bëggub sëriñ bi. du tee mu njaboote leen. nee na kon alhamdulilah. nee na bi ñu ko gënee bëgg sëriñ bi. gën cee jàmbaare. gën cee pasteefe. dana nee na loolu kon dana rafetal njortam. ci ndénkaane sëñ sëriñ bi. ak lim ko bëgg a defal. ak lim ko bëgg a defal. buñ ci jiitoo rek. ci jiitoo rek. njortam dana rafet. te yaakaaram it dana dëgër. ndax la ca des. moo nuy gàttandul boppam. ba kenn ku ci nekk. loo bëgg. boo ko ñaanee ci barkeem. mu fekk la ca. kon nag bu ñu takkoo am yéene am pasteef bëgg koo liggéeyal moo leen di gàttandul boppam nee na seen xel dal bu baax seen njortu rafet nga ne ki nu dëgmal ku ko dëgmal moo lay gàttandu te mooy topp ci sa ginnaaw nee na yàlla musal ci seytaane dañu góorgóorlu bu baax gën a te gën a jàppante. gën a nekk benn. gën tey waxtaan. tey waxtaan. tey werante. te bañ xuloo. ndax. ànd balaa neex. ànd balaa eh, yëgoo. di waxtaan. di ndax xel. ndax bu doon jaay lamb. bu doon jaay lamb. kon ku ne defe nga ne. sam xel. doy na <laughs> doy na la yow. waaye bu ñu boolee xel yi rek. di di waxtaan. di xelli di yëgoo sunu borom mën nañoo gàttandu sotti ñu barkeem aarnu Cheikh Mouhamad Lamine Mbacke aarnu góor góor bu baax ndax lii rek la waajur yi bëggoon nee na sunu baay yi lii rek lañ bëggoon nee na ñoom ñii fi toll yi tamit lii rek lañ bëgg ndax moo leen di may jàmm bëggub bi. ndax bëggug sëriñ bi. ci la sunu jàmm nekk. ci la sunu jàmm nekk. ci la sunu kaaraange nekk. nekk. te booloo nekk benn rek. la mas a bëgg. di ko dox. di ko dox. waxe kon nag jataay bi. kon nag la. ci sunu wayjur ya. mbégte la ci sunu maam ya itam. te ñooñu seen mbégte. te seen mbégte. mooy sunu njariñ. kon alhamdulilahi rabbil alamin nee na moo ngi sant bu baax. tey gërëm. ci barkeb Cheikh moom Lamine Bara. suñ borom aar leen. te sàmm leen. musal leen. defar leen. ban noppee yàqu. yàlla mën na ko. te am na ko. sëñ Baara mën na ko. sëñ Baara mën na ko. sunu jataay bii. jataay bii. kenn <laughs> nee jataay bii. benn jenn jëmb. bu ci dogoo ci loolu day wéy rawatina nag bi ñu àndee kenn ku nekk yéene sa bopp jàmm gën a bëgg sa bopp sa moroom kon nañu rafet njort rek kon yërmaande suñu borom ak bëggug sëriñ bi mi ngi ci sun biir kon alhamdulillah nee na lim bëgg a wax. xol bu sedd bu guy bàgg ci lool. mën naa soppiku leneen. mën kon nag jërë ngeen jëf. yàlla nañ ko teewe déwén déwén. barki sëñ Baara. nee na yéen jigéen ñi itam. mi ngi leen di beral seen cantuk bopp. ndax góor ñi jàmbaar lañu. waaye yéen jàmbaar ngeen. yéenay nekk ca waañ wa. nekk ca raxas ba. ak leneen ak leneen te góor ñi mënuñ leen ci li ñuy def seen fukki dërëm yi seen ñaar dërëm yi liggéey bu mu àndut du àgg du barkeel kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërëjëf Mbàkke ñi ngi lay ñaanalaat bu baax yàlla ak yonante beeg Cheikh moom Lamine Bara yàlla gën a guddal saw fan lool te dolli ak wér lañ doon wax daaw daan ko wax daaw jéeg Mbàkke loolu rek la ñu wéy di wax sunu xool dafa sedd ñun ñëpp waaye xam nañ ne mbooleem kàddu daayira bi lu ñu waroon wax Serigne Saliou mii wax na ko waaye dañuy dagaan sunu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne amuñu lu dul moom Mbàkke nga yàgg fi lool te ànd ak wér nga yàgg fi lool Mbàkke te ànd ak wér ñun de wax dëgg yàlla xam nañ wax dëgg yàlla fi nga nu teg ndax ni nga ñu jàppee ci ndaw rek waaye gis nañ ni nga ñu jàpp Mbàkke mënuñu daal lu dul di la ñaanal saa borom guddal sa fanta dolli sa wér te boo te bàyyi laa gi tamit ñii nga xam ne ñoom la la yàlla booleen muy jëwrin Serigne Cheikh Ndiaye ak Alaaji Njaga Géy mais wax dëgg yàlla ñoom it ay nit la ñoo xam ne wax dëgg yàlla xëtaluñ ñu benn yoon ci suñu diggante ak yow jamono bu ci nekk ñi ngi def lu yaatal suñu diggante ak yow fii luñ fi soxla njaga muy guddi day jàppandi Mbàkke Kajoor luñ fa soxla guddi muy guddi muy bëccëg day jàppandi Mbàkke ñu ngi lay mboolem ko fi toog daal na wax Cheikh Mouhamadul Moustapha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér barki Cheikh Mamadou Lamine Bara